seen bàyyi ki ñu wax way de tin ñooy doon feeñu woon taali bépp moo leen fi indi woon di taali bépp suñu mbokk Madina ak Madina lu mu mas a am ci lu baax suñu mbàkke ak Madina la koy dox danaan def bu gisee taali bi suñu borom dimbali ko danaan la kaam dem te sama sëriñ ba maa fi gën sëriñ fii sëñ Mbacke Madina Daam Ndiaye ma nekkoon université di directeur moo ko indi fii sëñ Mbacke Madina Antoine Diagne ak ñi mu ci mënta lim ñëpp bokkoon moom am bawol indi na la fii sëñ Mbacke Madina ba ci tey daayira bii ngeen gis mu toog doomam a ko jiite comme ñoom kër gi seen kër la ñoo ko moom yow mii sax Mbacke la ndax seeni wajur a tax nee na mu gis wajuram nam leen defoon te dindi wu leen ci dara kon Mbacke nee na kër gi li ngeen wax rek seen kër la yéen a fi nekk keneen ñëw fi sëñ bi jàll taalibi sëñ aboo la te bi ñëwee fi mu toog ba léegi dugg moo ñoom ñu aboo lañ yaakaar te boo dikkee da ngay defe ni kër gi maa dirigé lépp te dañ koo bàyyi lépp rek loolu dong la Mbacke nee na loolu rek la ci bëggoon a dolli jërëjëf Mbacke kàddu yi rafet na lool suñu day Mbacke bu dégg say kàddu xam ne am na yiir yërmande te bëgg nga say mbokk te boole nga say mbokk lii nag fa nga nekk ca Ndakaaru wan nga ko taalibe Sëñ Tuubaa yi wan nga ko taalibe Sëñ Mbacke Medina yi waaye bu nit yu baax da ngay fekk ca boppam say mbokk yi gërëm nañ la te taxawaay bi waay na ko kon yàlla yàlla yàggal taxawaay bi ci barke Seexul Xadiim loolu lépp bu amee si soxna day soxna day Mbàkke bu baax soxna bintu Madina soxna ma Madina bi ko yàlla booleeg moom bi ko yàlla booleeg moom mu jógee ci soxna Ndey Mbàkke mu jógee ci soxna Ndey Mbàkke daf ma defoon doomam daf ko defoon doomam bu mu jur bu ñëwee Dakar bu ñëwee Dakar buñ ko defaree xéewal suba teel buñ ko defaree xéewal suba teel bu ndekkee ba ci digg bi ba ci digg bi day daf may woo daf lay woo bu ma ñëwee mu jox ma bu ñëwee mu jox ko li ci des ci liggi waaye saa yu fi loolu amee waaye saa bu loolu amee ba dem dem dellusiwaat Touba ba mu dem dellusiwaat Touba dinaa gis loo xam ni dina gis loo xam ne ay xéwal yi koy bett te moog yàlla rek ko xam loolu beneen mbir kon nag loolu beneen mbir la te tey it tey fa newee ba mu fa nekkee ci gis-gis ci gis-gis am na ñu fogoon ni am na ñu fogoon ni ah damay fooye sama bopp damay fooye sama bopp damay tardé sama sama bopp parce ma daan wax ne wax rek waaye yaakaar na ni tey. waaye toll ni marché Colobane. lu toll ni marché Colobane. suñ la joxee. ma jiite marché Colobane yëpp marché Colobane yëpp. jiite teer yëpp. jiite teer yëpp. man doon def xam na loolu mu doon def xam na ko. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf soxna jërëjëf soxna Ndeye Mbacke. soxna Bintu yàlla yàlla yokkee leeram. ay leeram njabootam gi yàlla na leen yàlla teg loxo yàlla guddal seen fan yàlla guddal seen fan lool ba soxna day fekke lépp soxna day fekke lépp képp nekk ci jotaay képp nekk ci jotaay bi ba ñu umbale lool ba ñu umbale lool yàlla mën na ko yàlla ya rabbal alamin nee na day jéem rek waaye lu mu tële la waaye faaw mu wax ndax kële toog mooy mooy magam it moo waroon na wax waaye moo ko jox ndigal ngir mu wax di sant bu baax rek ki ñu fi boole ñun ñëpp muy suñ mbàkki madina yal na yàlla yokk ay leeram bi ci tegu muy bàjjanam soxna bintu mbàkki yal na yàlla yokk ay leeram di sant bu baax nag ki mu ngi bàyyeel muy soxna ndey mbàkki moom it ñu ngi koy ñaanal bu yàgg loolu te am na ko leen amiin saa bu fi ñëwee fekk ko fi moo ko rakkam yu baax yii muy sëñ abo sëñ xaadim ak ak njabootam yëpp ak soxna Faati mu baax mi nga xam ni mooy soxna min fi fekk kër gi saa bu ñëwee sëñ abo daaw du ñu ne leen ko nee na bu ngeen fi ñëwee. fekkul ma fi. muy góor ñi. sañ ngeen ubbi sama néeg. tëdd fa. jigéen ñi. ngeen ubbi sama néegu soxna. tëdd fa. te xam ni maa ngi yéen yëpp. ñoo kër gi. sant bi koy ziar. waxaat na ko. kon nag ñun li ñu am. maa ko sant bu baax. suñuy waajur. ndax du ñun ñoom la waajur ñoom ñoo ñu teg ci yoon wi ñu fekk leen ci yoon bu baax ñu ci yoon bu baax yoonu Serigne ñu ci nàmpatal ñu ci ba am ci kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom dañoo jiitu bu nekkee tout temps daan indi fii bu nekk ay xale yu ndaw ñu wan ñu yoon ba tey ji yoon wi ñu woon gisuñu dara lu lëndëm. wala loo loo xam ne seetlu suñu ko ca kaw ca kanam rek lañ ci gis. kee di suñu rakk bi sëriñ moom. kee di rakkam moom. ñoo ko féete. seen rakk la ñoo ko féete mag. waaye mooy suñu jóg. waaye màggal bu teew. bu màggal bu teew. bëggatul dara bëggatul dara. gisatul dara gisatul dara. Tuubaa rek la gis. Tuubaa rek la gis. waaw daanaka da ciy dem sax ba nit ñi yenn dem ba nit ñi dem waaye li mu gis rek la gis. waaye li mu gis rek la gis. te li mu gis ñun ñi moom te li mu gis ñun ñi moom la ñu gis. moom ñu koy ñaanal bu baax. moom ñu koy ñaanal bu baax. moom magal bi bëtin. moom magal bi bëtin. ak mboolem njaboot bi ak mboolem njaboot bi. mboolem njaboot way la ci lépp. soxna kii wax na soxna ndey wax na ko. dañ fi daan dajee seen papa moom fii dal ko xumb lool. dal ko xumb lool. ak mboolem bu dëkk Bawol ak Caajaay yëpp ak mboolem bu dëkk Bawol ak Caajaay yëpp. ni ko soxna day waxee nii noonu rek la demee. kon nag ñu ngi leen di ñaanal. kon ñu ngi leen di ñaanal. ñu yàgg si loolu ñu yàgg si loolu taal ak yooyu am nañu. bis bu dara lu naqari. ñu ngi nga yàgg si loolu taal ak yooyu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si kon soxna si ñu tàllal loxo yi rek nga ñaanal mbooloo mi ñu teew ko ay déwéni déwéni suñu borom faj aajo yi di barke Seexul Xadim na ñëpp tàllal loxo yi Blaise amin, amiin amin,